déedéet du waxtu tuur rongoñ lay jooy what you crying for du waxtu tuur rongoñ benn xeex lañu war a xeex et cette fois-ci billahi bu ñu génnee waruñoo dellu suñu kër yi directement au palais problème bi dafay jeex Sénégal quand il y a les coups d'État constitutionnels la population prend ses responsabilités Mali bi mu jógee ba juróomi nit ñooy génn ñu jaay la doole dix mille personnes cent mille personnes un million de personnes bu ñu génn ku lay jaay doole sonkorisation bi ci stade yi rek gis ngeen doole bi mu am policiers yi ñemewuñu leen ak parce que xam nañ ne dix policiers vingt policiers y a dix mille jeunes qui sont fâchés sonko namm naa la sonko namm naa la sonko sonko sonko namm naa la Europe bi ñu jógee lan moo Paris gis ngeen ñaata parisien ñooy génn ci ndedd ñooñu kan moo leen ñemee song Amérique biñ fi génnee est-ce que gis ngeen ñaata lañu kan moo ñu ñemee song dañuy négocier ñoom ñooy négocier maintenant c'est la responsabilité de Sénégalais kenn ku nekk ci ñun dafa am responsabilité am taxawaay bu mu war a taxaw maa ngi ñëw encore une fois ak yéen fan yii ñu ngi waxtaan ci suñu biir dinañu jóg te bu ñu joxee coup d'envoi bi ñëpp pale de la république la ñuy dem daje amul ay layam-layame yooyu dafa jeex il faut sénégalais yi xam ne mën a ñu libérer senegal bu ñu jógul xeex trop c'est trop benn groupe bandi jàpp réew mu otage lu leen neex def ku leen neex tëj ku leen neex tëjji Macky sàll bu respecté woon Sénégalais yi dina jël suñu institution yu baax yi di ci teg ay nitam bu tegul Maham jàll fii mu teg Siré lii fële mu teg bandi bi fële mu teg bandi bi fële tous des délinquants ay mbokkam xam ngeen ñaata mbokk la Macky am ci gouvernement Sénégal mais Macky dafa yab Sénégalais yi bu ñu demee mel ni Boun Abdoulaye Dionne mu ne moom candidat la Boun Abdoulaye Dionne Aly Ngouille Ndiaye ces imbéciles ces délinquants bu ñu demee Sénégal Boun Abdoulaye Dionne laa wax Boun Abdoulaye Boun Abdoulaye Dionne mu ne Sénégalais lui il est un candidat Boun Abdoulaye Dionne Boun fan la yabee Sénégalais yi wala Aly Ndiaye fan la yabee Sénégalais ba ñu ne ñoom ay candidat lañu ci élection présidentielle bu Sénégal Boun Abdallah Dionne li mu def ci ñaaw ñaawteef ci senegal est-ce que xam ngeen ni mu toll Aly Ngouille Ndiaye ak Boun Abdallah Dionne li ñu def ci ñaaw Sénégal senegal ce que yéen xam ngeen ni mu toll ñun war nañoo toogati ci senegal di déglu ay chroniqueur wala ay journaliste di ñu wax ay voilà Sénégal waaw jurisprudence Macky la xam nga waaw légalité waaw Pastef waaw bañ ko tasee waaw boobaa voilà bañ ko defee nii ñun war nañoo toogati di déglu loolu Boun Abdoulaye Dionne ba mu amee fit ne moom candidat la Aly Ngouille Ndiaye am fit ne moom candidat la kan la ñu war a mën a teree doon candidat ci Sénégal ces imbéciles ñooñu fu ñu toj les plus grands délinquants les vauriens du Sénégal ñaari band yooyu ñaari sawkatu lal yooyu ñun fan la ñu makki yabee rek fan la ñu makki yabee fan la ñuy toog ba makki yam ñu Félix Antoine Diome frère am boo xam ne c'était un cuisinier non serviteur ci restaurant contra wu deux milliards lañ ko jox moom ci réew yu mel noonu lañ ne ñun senegal kat kañ la ñu mag yàpp jàpp doomu jàmbur yi di tëj Ousmane Sonko di tëj kañ ngeen gëj gis kan ngeen gëj a gis nit bu dem ci Ousmane Sonko ne Ousmane Sonko laa seeti woon amul kenn amul droit gis ko benn cercle bu ndaw benn nit wala ñaar ñu am droit gis ko nii la war a demee ci ay élection ay élection ñun buñ ci demee on est foutu mes Vous êtes la là, vous êtes sérieux là. On va aller en élection sans Ousmane Sonko. ne ñun dañuy dem gagner ay élection yéen lan moo jo jot Sonko nee na leen si le peuple sénégalais se lève je serai candidat il n'a pas dit si mon juriste parlait si mes avocats vont à la cour d'appel voilà si mes partisans non non non c'est pas ce que Ousmane Sonko a dit Ousmane Sonko a bien et clairement dit Si les Sénégalais imposent que je sois candidat, je le serai. Ma candidature dépend des Sénégalais. Il n'a pas dit que ça dépend de El Malik, ça dépend de Biram Souley, ça dépend de Abbas, ça dépend de Amadouba, ça dépend de Guy ça dépend de ça dépend de Ousmane Tounkara, ça dépend. Non. Il a dit si la population sénégalaise dit que je serai candidat, je serai candidat. loolu la Ousmane Sonko wax la population sénégalaise la population sama yaay ci la bokk sa yaay ci la bokk sama frère ci la bokk te bii yoon population Sénégal yéen lay waxal dama bëgg ngeen jël seen temps yéen jigéenu Sénégal aussi ndax jigéen góor mag ndaw la ñuy woo du ay ndaw de woowuñu ay ndaw de parce que xam ngeen Libéria lan moo ko libéré Libéria jigéen ñaa doon fanaan ci mbedd mi c'est les kii qui dormaient dinaa leen ko won am naa ko ma won leen ko Libéria c'est les le les femmes qui dormaient dehors jigéen ña ñoo doon nelaw ci biti jigéen ñi ñoo doon nelaw ci biti oh my god sama téléphone bi waay waay waay mon téléphone ma tue damay garder ay message message yi di effacé wu Libéria c'est les femmes qui dormaient hold on hold on may leen ma tuuti rek may yónnee sama waa ji message may yónnee may leen ma tuuti sama sama kii day day effacé wu. leen ko rek les femmes du Libéria bañ ci pare moom la Ellen Johnson pare nekk ci présidente la première présidente femme de l'Afrique ñooñu ñoo doon nelaw ci mbeddu Libéria yi di xeex bàyyiwuñu góor yi ñu dem. góor ak jigéen mag ak ndaw ñoo war a génn xeex yi waxuma wala ndaw ñi génn wala ñeneen ñi toog déedéet déedéet suñu yaay yi dañoo war a génn suñu sœur yi dañoo war a génn mag ñi dañoo war a génn ndaw ñi dañoo war a génn bàyyi leen ay problème mu lacrymogène sa waxtu dee du waxtu dund waxtu dund du waxtu dee sa waxtu dee bu jotee boo toogee sa kaw lal falal la lacrymogène bi wala balu fetel bi di fokk nga faatu boo nekkee ci mbedd accident am dangay gis nit génn faxasu ci dox dem yoonam dara jotu ko yàlla moo man loolu yàlla moo yor bakkan moo koy jël ragal yab yàlla la ragal yab yàlla la sénégalais yëpp bu ñu génnoon Macky Sall du am fit du jël ay lacrymogène di leen ko sànni maa leen ko wax sénégalais yi lépp voilà voilà merci beaucoup Pastef Niger merci on veut la liberté mais on veut s'asseoir chez nous et rêver que la liberté viendra liberté du ñëw liberté dañ koy xeex liberté dañ koy foqati li ngeen bëgg dafa yomb xaar waaw attekaay bi à grande instance waaw nañu dem cour d'appel <laughs> bu ñu pare fu ñu jëm cour CEDEAO loolu bàyyil leen ko avocat yi sëriñ bi dafa war a génn xeex sëriñu Ousmane Sonko dafa war a génn ay taalube Ousmane Sonko dañoo war a génn ay yaay ay doom ay mag ay rak ñëpp war a génn lii lii c'est pas un combat de caaxaan même les femmes de Ousmane Sonko ils sont invités tout le monde parce que nag nañu waxante dëgg de gis nga waxtu xeex du waxtu toog waxtu toog du waxtu xeex kenn ku ne am na rol boo war a jouer ci combat bi ça c'est un combat de souveraineté c'est pas un combat de négociation waruñoo négocier préparer leen ku manul daw takkal sa tànk ma la gis nga temps yonenti yàlla billahi wallahi tallahi lazim wala temps libération yu mag yi gars yi suñu suñu mag yi kilifa yu mag yi dañu daan def dégg naa ay xeer ci seen biir caaya pour ñu bañ a mën a daw pour ñu taxaw jàmmarloo sëñ bi on na encore les cafards qui sont venus récupérer notre pays il est temps de se on va nu préparer Sénégal lu leen neex wax leen lu leen neex xalaat leen mais tant que génn ñu xeex du ñu am liberté loolu mooy dëgg fii nag la sama wax di lijjantiwuma cour de la CEDEAO lijjantiwuma cour suprême lijjantiwuma couru Ziguinchor wala couru Matam wala Podor wala Dakar car moo ñuy libérer seule la lutte libère quand la population se lève la fête est terminée loolu mooy wax bu kenn déglu sëriñ arrêté leen di déglu sëriñ sëriñ yi sax dañoo bokk ci deal bi sëriñ dañoo bokk ci dil bi arrêté leen déglu ay sëriñ sëriñ yi sax ils sont dans le man du waxantu xam ngeen lan moo tax man du ma gaaw a wax ci nit c'est parce que man kenn mënumaa tere wax amul amul doomu aadama bu yàlla sàkk ci àdduna bi bu juddu bu may teree wax sama fulla du sëtu diw du maamu diw amul sëriñ yi dañoo bokk ci deal bi maa ko wax boo xoolee seen comportement bu ñuy recevoir Macky Sall xam ngeen li may wax kenn doful ci yéen sëriñ yi yëpp dañoo bokk ci deal bi deal bi nga xam ne dañuy continuer maté population bi sëriñ yi ñoo gën a mën a maté population que man nee naa leen yor naa ay taalibe yu nekk fii ci Amérique yu ñëw seet si ma spécifiquement ñu ne sëriñ bi daf lay def jaam ba nga génn àddina am na taalibe yoo xam ne bi ma leen laajee lan moo tax nga jóge ci sëñ bi ñu ne damaa sonn nekk jaam man jaam laa woon sama baay jaam la woon baayam jaam la woon ñuy servir nekk ay jaam ba jon ci yàlla tey donc xam nga kooku du la génn du dagg bu mu kooku du daggal kenn bu mu njaam kooku li lijjanti du dem ci poosam lay lijjanti sëriñ si boo leen weddee li ma wax jëf leen doo leen jëf fa ngeen toog doo leen fa yëngatu de fa ngeen di toog di joxe ay ndigal di yónni ay nit ah waaw dina bàyyi waaw dana kenn bàyyiwul kenn ndax dil bi da ngeen ci bokk. ku ñu jàpp senegal waxtaan nañ ko ak yen ku ñu tëj Sénégal waxtaan nañ ko ak yéen ndax beneen force ngeen yéen boo toog jàpp loolu mooy dëgg dama ne xale yi weddi leen ñëpp ngeen génn xeex weddi leen ñëpp sëriñ bu la ne bul xeex toogal nga xool ndax dina ñëw joxe sa yaay dépense sëriñ bu la ne bul xeex ne ko tabaxal sama kër yaay yóbbul sama ndey sama baay màkk jox leen dépense doo ko gis billahi wallahi tallahi doo ko gis fa la ñuy toog waaw ndigal rek waaw toog leen defar rek waaw ndigal ndigalu lan ndigalu ma def la milliardaire yow man ma nekk jaam dama na sénégalais yi jóg xeex na sénégalais yi am fulla néew ma kenn bul am sëriñ yow boo bëggee gëm sëriñ sëriñ boo gëm ànd ak moom loolu sa coobere la mais dama ne xeex bii tey la wala jamais c'est aujourd'hui ou jamais manqué wu kenn respe gawuma dara ci ñoom man li ma am pour wax la ko mooy sëriñ yi yëpp dañu bokk ci dil bi ndax li ñu jàpp Ousmane Sonko ay sëriñ dig nañ ñu fi lu ne kenn gisul dara ku ko gis wax ma Ousmane Sonko ngi toog ci biir kaso bi maki Sall ngi noos ci biir dëkk bi te ñun ñu ne ñu doxee ndigal ku doxee ndigal yow doon nit mbaam moo la tane dem xeex yi seule la lutte libère nag voilà seule la lutte ku mu neex jëlal sama kàddu yi nga yóbbul ko ku la na ko interpréter nu ko neex bu subaa ma génn ma def lu raw lii waa salaamualeykum wa rahmatullah wa barakatu